te téeméer ak ñeent ak juróom fukk ak ñeenti place fukki tomb dox na ci ci yéeg moo ne day ñii di waa Reporters sans frontières yéeg boobee jàpp nañ ne warul nax kenn ndax taskatu xibaar yi ñu ngi gën di dund ay jafe-jafe ci réew mi li ñuy wax ci français analyse trompe l'œil c'est-à-dire que buñ ko gis rek ñu gaaw ne ñu ñu gaaw ko gëm parce que am na ay problème ba léegi et problème yi gën a am mooy 2023 euh, réew mi am na lu day lu lu day wala lu ëpp ni fukki euh, agression euh, atteinte contre la liberté de la presse loole waral ñii di waa Reporters sans frontières di ñaax njiit yu bees yi ñu def ay jéego ci wàllum démocratie ngir mën a aar taskatu xibaar yi néew ma 94e place dafa baax waxuma ko mais li ma mën a wax mooy que ni loolu noonu nañ ci jël exemple le li ñu war a liggéey ci réew mi bëri na autorités yi am nañ ci rôle journalistes yi seen bopp ak organisation journalistes yi am nañ ci rôle euh, communauté yi communauté bi am na mais ñun ñi nga xam ne ñun ay organisation lañ yuy liggéey ci Sénégal ak yeneen réew également am nañ ci réew. mu bokk ci ñu war a joyanti itam muy koom-koom ëtt taskatu xibaar yi ngir ña fay liggéeyee man ci gis seen bopp. il faudrait qu'un environnement économique de plus en plus. ñu mu xaw favorable et que loolu c'est le rôle des patrons de presse mënulooy liggéeyloo nit te doo ko fay ça c'est pas bien mënulooy également liggéey nit te te doo koy fayal ay impôt euh, même boo koy fay salaire sax te doo koy fayal impôt docteurs yi seen i euh, àq ak seen i yelleef ñu jox leen ko ci biir euh, dë ëttu taskaaru xaay xabaar yi te ñoom buñ ci jógee jóge defee jéego rek loolu luy mën a nekk naka noonu ONG bi di ñaax njiit yi ñu samp ab loi bi nga xam ne day gën a yombal accès à l'information bi nga xam ne moom mooy tax liggéeyu taskatu xibaar yi gën a yemb te itam jox ay garantie yu leer ci bataax yi ñuy jot